Abdou Mbow amul base politique motax jamais du dem ci liste départementale dañuy seet rek fuñ ko mën caser ci liste nationale pour mu nek député 2012 ba léegi fi mu defoon boppam ci liste député def fo bopam Macky Sall moko fa def deug la wala du deug moom dina bi ko nommé ministre de la république kan moko signé est-ce que yow ya ko signé mhm. Macky Sall mo jël khalimam comme ni Ablaye Wade defalon Baara mhm. signé ni Pape Gorgui Ndong nome naa ko ministre de la jeunesse dëgg la wala du dëgg mhm. say collaborateur yaa leen di tànn ñu ne la militaire ba ci civil post bi gën a mag ci état ba ci bi gën a ndaw yaa koy fal yow président de la république tey nga dem ñëpp gis ni ñi nga nome kenn baaxu ci